am nag ren bu tey jii daf ñu delluwaat ci tawxiid la ñu yóbbu ci ragal yàlla la yóbbu ci wéetal yàlla la ñu yóbbu ca du doy loolu moom xutba bii mën nañ koy xutba mu jot ca du doy xutba imaam ren mën nañ ciy jàngat ba déwén ñu tasewaat ak moom ci ragal yàlla ci li nga xam moom la ñu poussé muy tawxiid buñ ci jógee nag sama déclaration tey dama koy axé ci la jeunesse sénégalaise bi nga xam ni ñoom ñooy yaakaaru réew mi ëllëg kon niñ ko waxee woon bu ndey ñaan jàmm ci ñaan yàlla may ñu jàmm ci réew mi di ñaan yàlla di ko mag ñiy def imaam mii ak ñeneen ñëpp ku ci nekk soo xëyee ba ngoon jàmm rek ngay ñaan ndax réew mi am jàmm ndax li tax nit ñaan réew mi am jàmm am réew suy développé dem fi mu toll war a ci fi mu nek jëm ci réewum pétrole ak gaz diggante bi il faut mu am ay turbulence turbulence yoy nak ñaanu mag ñi rek ñoo man ci man ñoonu ci mën génné ba jàmm am ci réew waye buñu bu ñu ban am jàmm bëgg na attirer attention la jeunesse sénégalaise pour wax leen ni gaz bi ñuy sentu ak pétrole bi ñuy sentu yalla na ñëw ci indi jàmm waye du lu ñuy maye. du lu ñuy séddale du lu ñuy sotti ci mbedd mi ku nekk di tànq dañuy wan ne dañuy wax ne am réew suy développé am gaz wala mu am euh, pétrole nit ñi dañuy jàngi métier ñi war a def formation defi formation ñi doon jàng gën a xóotal seen njàng ñi am métier gën a xóotal seen métier cay xaar ne bu xaalis amee mu yomb ci ñoom waaye du lu ñuy séddale loolu laa bëggoon attirer attention wu yi ñu bari ñi ngi xaar di am yaakaar ni réew mi ci kanam bu nu yàlla dimbalee dinañ jot ci gaz dinañ jot ci pétrole waaye du lu ñuy séddale du lu jox ay enveloppe nit ñi ci kër yi day yombalal nit ñi liggéey bi il faut ku ñu xale yi jéem a gën a góorgóorlu ci métier mi bëggoon naa ku ci nekk bu réew mi méttee nag ba pouvoir d'achat bi wàcc ci commune bu nekk di nga gis xale yu bàyyi seen métier dem sax di bëri ji man nga bëre garder sa métier ndax bëri carrière am yàggul boo paree delluwaat ci sa métier mais bàyyi sa métier ndax yàpp nga ni ba euh, liggéey doxatul bis bu doxee du too boo koy jëliwaat doo fa fekk dar kon nañu jàpp ni lépp lu mën a doxal am réew liggéey moo ci jiitu liggéey ak jàmm yàlla mooy téye am réew ñu ciy sonn jeunesse bépp di ci sonn suñu bopp di ci sonn ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.